dañoo daje woon fii le secrétariat exécutif bi nga xamante ni moo regroupé l'ensemble des coordonnateurs du département de Tivaouane pour préparer visite président comme d'habitude nañ koy defee ci occasion boobu le secrétariat exécutif profitoo na ci vraiment pour féliciter le président de la République ci 57 pour cent yi nga xam ni moom la plus de 57 pour cent yi nga xam ni amoon na ko ci élection yi passé mais aussi magnifier vraiment le climat politique bi nga xam ni euh, à l' di climat politique ak dialogue bi nga xam ni la président daf ko woote. retrouvaille bi woote aussi li nga xamante ni mooy booloo doon benn parce que yaakaar naa Sénégal pour ñu doxal ko il faut ñu booloo doon benn mais surtout xalifa Sall bi nga xam ni président de la République accordé na ko. Euh, grâce euh, présidentielle donc di wane ni aussi ñun suñu engagement en tant que jeune du parti dañ koy fidéliser comme ni ko sëriñ Abdou Aziz si waxee woon ku def lu rëy rek foo nga am lu rëy parce que nag mën nañ ko wax fii li tax mu ni ko ku def lu rëy am lu rëy parce que yaakaar naa ku deful dara doo am dara waaye booy amit ñun la nga def lu rëy ñu remercier la daf ci am solo parce que nag boo xoolee 17 kilomètres de route am na Tivaouane boo xoolee yaa ngi gis ay bus di daw fii pour faciliter mobilité population bi gendarmerie bu bees boo xam ni bokk na ci yu mucc ay Tivaouane da cee bénéficié wu aussi mooy réfectionné waat préfecture yi mairie bu bees ñu tabax ko Tivaouane am ko mairie bu njëkk ba ñu réformer ko def ko centre socioculturel pour les jeunes donc li gën a am solo tamit mooy déchets yi nga xamante ni nii moom moo am Tivaouane ku ne xam ne Tivaouane set gi des na président tabax lu mel noonu pour vraiment jàppale la population donc tabax fi tamit benn foraay boo xam ni 16 hectare la loolu bariwul ci dëkk yu mu am mais bi ma fàtte mooy eaux usées yi nga xam ni moom programme boobu de d'assainissement de 6 milliards kon donc loolu lépp bu ñu ko doon cité ci li président def bu jeex mais dañuy yamale loolu rek ci ci ci réalisation di ko wax ni ko Tivaouane dañoo ànd ak moom en tout cas ñun COJER départemental dañu ànd ak moom et waaj di ko xaar pour mu ñëw Tivaouane ñu recevoir pour recevoir bu mucc ayib donc loolu ñu ngi koy xamal le président de la di ko xamal képp koo xam ni taalibe nga nekk militant nekk sympathisant ak ku mu mënti doon nga génn ñu teeru la président de la république parce que nag gan la goo xam ni suñu gan la waaye nag ganu sëriñ bi nga xamante ni moom moo jël bi tey la tarixa tijaaniya donc di wax ni que aussi président pour mu réussir mission il faut que ñu tajaloo doon benn jàppante loxo parce que ragal naa ni xam naa ni pour nga nit mu réussir mission il faut ñu doon dajaloo suñuy force parce que c'est l'union qui fait la force di faire appel nag à toute la jeunesse à tous les militants ñu gën a jàppale le président de la république parce que mission bii ñu ko jox c'est le c'est une mission pour le Sénégal donc di wax ni aussi loolu moo ñuy permettre ñu mën a jëli ay nit indi leen ñu gën a renforcer le parti ñu aussi conformé wu ci vraiment li nga xam ne mooy dis parti boo gis dafa am li ñuy wax discipline ñu respecté discipline nu parti bi parce que nag kilifa gu nekk moo xam na muy doxalee ci biir këram waaye di euh, terminer di ñaan suñu excellence le président Macky Sall bi nga xam ne mooy président Sénégal mais président la bi nga xam ne mooy yor structure bi nga xam ne mooy APR di nekk suñu parti te bu ñëwee Tivaouane vraiment mu mën ñu recevoir ñun ndaw yi serait que ñu échanger ak moom parce que dafay am solo nit ku nekk sa responsable national ñëw nga échanger ak moom vraiment ñu ngi koy ñaan loolu ci baatu Tiwaawan gi yëpp ci baatu ñëpp pour que mu mu recevoir ñu am échange ak moom parce que am na yu bëri mën nañ ko ko bëgg nañ ko ko wax loo xam ne dañuy renforcer non seulement politique mais ci côté euh, yëpp. en ñun la COJER du département de Tivaouane ñu ngi xamal ni suñu président de la république dafa war a ñëw Tivaouane képp koo xam ni dafa jóg ni. ah président bu dikkee dinaa fexe ba saboté wala nangam en tout cas du ñu provoqué kenn mais ku ñëw pour saboté di nga xam ni am na yeneen jeunes yu taxaw pour boo saboté rek ñun ñu def le contraire. Euh, c'est Pape Ibrahima Niang. Euh, je suis le coordonnateur de la COJER du département de Tivaouane. voilà la raison de ce point de presse. Euh, comme euh, d'habitude chaque année à la veille du Mawlud. la COGER du département de Tivaouane organise une conférence de presse après avoir consulté le secrétariat exécutif national, euh, euh excusez euh, départemental, donc pour préparer l'accueil du président de la République à l'occasion du Mawlid de Tivaouane. Voilà la résolution de cette réunion. Donc, euh, mesdames, messieurs, membres de la COGER, chers journaliste le secrétariat exécutif de la COGER départementale s'est réuni aujourd'hui dans le cadre de la préparation de la prochaine visite du président, son Excellence Macky Sall à Tivaouane, plus précisément à l'occasion du Maouloud 2019. Le secrétariat exécutif, à cette occasion, en a profité pour féliciter le président de la République pour sa réélection au premier avec plus de 57%, ce qui confirme nettement la confiance renouvelée du peuple sénégalais et aussi magnifier l'apaisement du climat politique avec l'ouverture du dialogue national, les retrouvailles avec le président Wade et la grâce accordée à Khalifa Sall. Le secrétaire, le secrétariat exécutif se réjouit de l'engagement du président Macky Sall à faire de la ville sainte de Tivaouane une ville moderne. Raison pour laquelle feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine lui disait son historique. Jaajëf jaajëf président de la République pour les 17 kilomètres de route. 15 bus de transport en commun pour la mobilité des populations. Le bloc scientifique du lycée, la construction de la nouvelle gendarmerie, la réhabilitation de la préfecture de Tivaouane, la construction de la nouvelle mairie. la réfection de l'ancienne mairie à un centre socioculturel. Le projet de gestion des déchets qui est le centre d'intégrer et de valorisation des déchets. Le point de regroupement normalisé. Le projet de gestion des déchets dangereux. Forêt de 16 hectares. Tivaouane, ville verte. l'esplanade des mosquées avec euh, le projet de la modernisation des villes religieuses. Le secrétariat exécutif affirme que affirme Tivaouane reconnaissante est toujours prête à recevoir le président de la République dans la joie et l'allégresse. Ainsi, le secrétariat exécutif lance un appel envers la population de Tivaouane, les talibés et plus particulièrement les militants de l'APR à se mobiliser et à réserver au président Macky Sall un accueil populaire. Le secrétariat exécutif réaffirme son engagement à faire face à toute personne qui chercherait à saboter la visite du président Macky Sall, qui, à cette occasion, sera l'hôte de notre vénéré calife général des Tidjanes, Serigne Baïsi Mansour. le secrétariat exécutif, après avoir réaffirmé son engagement derrière le président Macky Sall pour l'accompagner à réussir ses nobles et exaltantes missions à la tête de notre pays, lance un appel envers tous les militants et responsables de l'Alliance pour la République à œuvrer pour l'unité dans la massification au renforcement du parti et aussi à nous conformer à la discipline de notre parti. Enfin, le secrétariat exécutif profite de l'occasion pour solliciter une audience avec le président Macky Sall. Son Excellence le président Macky président de l'Alliance pour la République, pour lui transmettre de vive voix les préoccupations de la jeunesse du département. vive Tivaouane reconnaissante vive la paix vive le président Macky